الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu émission kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall moo leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu mbokk yépp yi yeewoo fii ci biir Sénégal di nuyu itam ña nekk ca bitim réew te ñuy déglu ci internet bi niñ koy faral di defee saa su nekk dañuy ubbi téere bi nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom jox muy biibal bi nga xam ne am na kóllëre gu njëkk gi ñu naan ko ci nasaraan ancien testament am kóllëre gu bees gi ñaan ci nasaraan nouveau testament ubbi téere bu sell bi jàng ci ndaxte amuñu dara lu dul li ñu yàlla sunu boroom wax li ñu yàlla sunu boroom jox yàlla sunu boroom nag soob na ko mu jox ñu téereem bu sell bi ci kaw cofeel gi mu am ci ñun ak ni mu bëggee ñu xam ko ngir ñu mën a dund dund ju sell dund ju dëppoog li mu namm ci ñun ba ëllëg mu mën ñu dalal ci palaas bu sell bu baax bu rafet boobu nga xam ne moom la pareel ñépp ñi nga xam ne déggaloon nañ ko kon tey dañuy jàng ci injiil li nga xam ne jëmm na ci jëmm ju sell jooju nga xam ne yàlla sunu boroom moo ko tuddal boppam bi mu ganesee àdduna muy Yeesu Kirist yàlla ne dee leen ko woowee Emmanuel muy tekki yàlla ganesi nañu ne dee leen ko woowee itam ku sell ki am na yeneen ak yeneen tur yu bari yoo xam ne yàlla sunu boroom jox na ko ko te ci tur bu nekk dafa am lu muy firndeel ci li mu doon ak mission bi nga xam ne dox na ko yàlla sunu boroom nee na tuddee leen ko ràmmkat bi ndaxte day ràmm yàlla sunu boroom nee na tuddee leen ko ku yiw ki ndaxte day joxe yiw yàlla sunu boroom nee na tuddee leen ko ku baax ki ndaxte yàlla sunu boroom dafa jaar ci moom ngir fésal baax gi mu baax ci ñun ñi nga xam ne ñooy ay jaamam kon bés danañ def émission ci tur yooyu nga xam ne yàlla sunu boroom jox na ko jëmm ju sell ji di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla itam nee na tuddee leen ko kiy dëfal ndaxte moom moo ñuy dëfal képp koo xam ne am nga tiis képp koo xam ne am nga naqar képp koo xam ne soxla nga ku la dëfal boo gestoo Yeesu Kirist mu dëfal la ndaxte yàlla sunu boroom nee na mooy ki nga xam ne moom mooy dëfalaate kon bu ñu jàngee ci injiil jàng ci xaaj bi ñu jagleel yowaana jàng ci aaye fukk ak ñett ci saar benn ba saar juróom ñaar ñu jàng itam ci saar fukk ak ñaar ba saar fukk ak juróom benn lii lañu yàlla sunu boroom wax mu jëm ci jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist kon ñu jàng ci yowaana ci aaya fukk ak ñett saar benn ba saar fukk ak juróom benn laata màggalu bésu jéggi bala woon Yeesu xamoon na ne waxtu wi mu war a génn àddina dem ca wetu baay ba jot na ku bëggoon ñonom yi nekkoon ci àddina la te bëgg na leen ba fa mbëggeel mën a yem yeesu ak taalibe yaa ngi doon reer fekk na boobu seytaane xirtal na yuda doomu simon iskariyot ngir mu wor yeesu yeesu xamoon na ne yàlla joxoon na ko sañ-sañ ci lépp xam itam ne ca yàlla la jóge te ca moom lay delluwaat mu daadi jóg ca reer ga summi mbubam daadi jël ab sarbet laxasoo ko ci ndiggam noonu mu sotti ndox ci ab këll daadi tàmbali di raxas tànki taalibeem ya di leen fomp ak sarbet ba mu laxasoo woon ba mu leen raxasalee seeni tànk ba noppi yeesu dafa solaat mbubam dellu toogaat ne leen ndax xam ngeen li ma leen defal yéen a ngi may woowee kilifa gi ak borom bi te wax ngeen dëgg moom laa kon bu fekkee ne man mi borom bi di kilifa gi maa leen raxasal seeni tànk yéen itam war ngeen di raxasalante seeni tànk bàyyil naa leen fi royukaay ngir ngeen di jëf ni ma jëfeeg yéen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jaam gënula màgg sangam mbaa ndaw ki ko yónni gandaaw xam ngeen loolu bu ngeen doxalee noonu di ngeen bég loolu lañu yàlla sunu boroom wax mu jëm ci loo xam ne xew na ci jëm dundu jëmm ju sell jooju di seydina isa almasi bi yeesu kirist dundam nag jàngale la waxam jàngale la dañ ciy roy dañ ciy jàng jëfam itam jàngale la dañ ciy roy lépp loo xam ne mës na ko wax ci yàlla sunu boroom la jóge nee na woon moom yeesu man duma wax ci sama coobare yàlla moo may waxloo baay bee may waxloo may wax mu wax ne itam li muy jëf daf koy def ngir mu doon misaal ndax ñu ciy jàng yeesu am na yu bari yoo xam ne jëf na ko taalibe mi daan gis askan ba nekkoon ak moom daan gis mu soob yàlla sunu boroom ñu indil ñu loolu ci injiil ngir ñu ciy jàng di ci roy ndaxte Yeesu Kirist royukaay la woon fii nag yàlla sunu boroom di ñu wax loo xam ne xewoon na ba nga xam ne ñi ngi màggal bésu jéggi ba ku nekk xam na ne bésu jéggi ba mës naa ci def émission mooy guddi ga nga xam ne yàlla sunu boroom yónni na ab malaakaam mu dugg ci bër misra def la mu fay def firawna mujj nangu goreel bani israel bani israel nag baaxoo woon di màggal bés boobu at bu nekk ñu ne yeesu kirist dafa jël sarbet laxasoo ko jël ab këll def ca ndox sukk ca suuf jël tànku taalibeem ya tàmbali di ko raxas ba mu set wicc loolu nag dafa nekk loo xam ne yahud yi dañ ko baaxoo woon di ko def dañ daan am ay ndaal yu rëy ci seen biir kër mu fees ak ndox ñu am teg ko ci bërëb boo xam ne boo duggee ci kër gi yow mi dëkk ci kër gi wala ngay gan dangay dem raxas sa tànk ba mu set wicc raxas say loxo ndaxte dañ daan dox ñoom loolu lañu xamoon dañ daan dox ay diir bu gudd bu ñëwee nag tànk yi day tilim loxo yi day tilim ñu raxasu ba set wit balaa ñuy lekk itam dañ daan raxas seen loxo ba mu set wicc ndaxte loolu dafa nekk loo xam ne dañu do baaxoo woon di ko def am na ci ñoo xam ne sax dañu amoon ay nit ñu leen daan liggéeyal ci seeni kër bu nit ñëwee wala gan ñëw wala ku dëkk ci kër ga ñooñu dañuy jóg tànk ca ndaal ga ñëw raxasal la sa tànk ba mu set wicc yàlla sunu boroom di ñu wax ne yeesu sukk na ci kanamu ay taalibeem jël ab sër laxasoo ko takk ko ci ndiggam tàmbali di leen raxasal seeni tànk bi mu defee loolu ba mu pare mu ne ay taalibeem lii ma leen defal man mi nga xam ne yéen ak may woowee kilifa gi ak borom bi te wax ngeen dëgg moom laa bu fekkee ne man mii raxasal naa leen seeni tànk bàyyil naa leen royukaay bàyyil naa leen loo xam ne war ngeen ko roy ci man bu dee man mi nga xam ne maa leen féete kaw man mi nga xam ne maa leen tànn di leen jàngal di leen tàggat ngir ngeen mën a yeggali mission bi bis bu mu fi jógee bu dee man mi nga xam ne maay seen kilifa man maa sukk ci seeni tànk raxasal leen seeni tànk ba mu set wicc kon yéen itam roy leen ci man mu ne leen ca dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jaam gënula mag sangam bu dee nag sang bi moo def lu mel nii kon yéen ñi nga xam ne yéenay jaam yi wala boog taalibe yi roy leen ci sang bi bu dee seen sang moo mën a suufeel boppam ba defal leen lu mel nii kon yéen seen dund na ngeen ko lal ci suufeel seen bopp Yesu Kirist xamoon na ne ëllëg taalibeem yi danan dem ba mbooloo yu bari yu bari topp leen xamoon na ne ëllëg danan dem ba nga xam ne yàlla sunu boroom dana jaar ci ñoom def ay kéemaan yu rëy ba mbooloo yi dana leen sopp topp te loolu itam dañuy gis ne am na ndaxte taalibeem yi fa ñu mës a dem fa ñu mës a génn mbooloo mu takk mu takk mu takk moo leen doon topp ndax la yàlla defoon ci ñoom la Yeesu Kirist defoon ci ñoom mu leen di jàngal nag ne leen kat man de yéen ak may woowee kilifa gi di ma woowee borom bi te dëgg la waa ngal la bu dee man maa suufeel sama bopp takk sama ndigg sukk ci seeni tànk raxasal leen seen tànk kon yéen itam ci seen biir dee leen defalante loolu waxul woon di raxas tànk yi wante mi ngi leen doon jàngal lan mooy woyof lan mooy woyof ak ni yàlla sunu boroom bëggee jaamam yi woyof yeesu xamoon na ëllëgu taalibeem yooyu mu tànnoon ndaxte amul dara lu ko ëmp lépp la xamoon lay ñëw ëllëg xamoon na ko la weesu woon démb amul dara lu ko ci réer lay ñëw ëllëg xamoon na ko mu ne leen bàyyil naa leen royukaay bàyyil naa leen royukaay dee leen def ne man dee leen suufeel seen bopp dee leen woyof ndaxte Seydina Isaa almasi bi Yeesu Kirist bu ñu jàngee ci injiil da daan lekk ndoo ak ñépp da daan toogandoo ak ñépp dafa ñépp daan tëdd la daan tëdd da daan wax ñu koy dégg da daan tontu ay laaj nit ñi dañ ko daan jege mu dalal leen téere bu sell bi sax dañuy wax ne da daan dem ba day sonn da daan dem ba day xiif ndax nekk ci soxla nit ñi moonte de ñépp gisoon nañu ne kii ci yàlla la jóge ñépp gisoon nañ ne kii kat la muy wax ak la muy def amul kenn ku ko mës a def te du am kenn ku koy def ëllëg ñépp xamoon nañu sellaay bi nekkoon ci moom ñépp xamoon nañu mu juddoo ndaxte mooy ki nga xam ne fekk na ko faatu ba am ñetti fan mu ne ko jógal néew si waa ji dekkiwaat muy Lazare moonte de ñépp la daan toogandool di wax ak ñépp ñu koy dégg di lekkandoog ñépp di tëddandoog ñépp di dox ne ñépp ak ay tànkam ñu ne da daan toog ba xiif da daan mar mës na mar ndox dem ci benn dëkk bu ñaan Samari fekk fa ab jigéen ab soxna mu ne ko may ma ma naan ndax dama mar ndaw si jël baag bi sóob ko ci teen bi may ko mu naan da daan xiif dugg ci tool dagg ci pepp bi lekk da daan waxtaan ak ay taalibeem da daan wax ak askan wi rax ci dolli mu leen doon jàngal lan mooy woyof kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi Alleluia
bi mu raxasalee taalibeem yi seeni tànk ba mu set mu jël sarbet ba mu lëkkaayoo woon mu fomp tànk yi dafa ne leen def leen ne man jàng leen ci man ndaxte lii royukaay la de leen roy ci man mu ne leen yéen a ngi wax ne kilifa gi noonu ngeen may woowee te seen kilifa laa yéen a ngi may wax boroom bi te seen boroom laa waaye bu dee man maa mën a sukk ci seen kanam raxasal leen seeni tànk fompal leen seeni tànk kon yéen itam woyafal leen seen bopp seydina isa almasi bi yeesu kirist ni mu leen ko doon waxee sànq boo jàngee ci injil gis na mu doon doxaleeg nit ñi dangay gis ne ku woyofoon la ku woyofoon la ku woyofoon la moo tax mënoon na dugg fu nekk mënoon na wax ak ku nekk te ku ko soxla jot ci moom mu yomb torop nit da daan jóg bëgg a yegsi ci moom taalibe yi ne ko déedéet doo dem mun leen bàyyi leen ko mu yegsi gumba silmaxa bañ tuddee woon Bartime ba mu déggee ne yu yeesu mooy jaar dafa jóg di yéexu naan yeesu yeesu yeesu ngir mu génnee ko ci silmaxa googu mu nekkoon taalibe yi naan déedéet déedéet mbokk yi naan déedéet déedéet yeesu taxaw nekkan moo may woo bàyyi leen ko mu yegsi ba mu ñëwee mu fajal ko aajoom ne ko lan nga bëgg mu ne ko gis mu ne ko da nga gisaat mu tàmbali di gis da daan toog ak nit ñi di lekkandoog ñoom ñu koy gis muy lekk di naan ak ñoom moo tax mu ne ay taalibeem man kat ëllëg xam naa ne da ngeen am mbooloo ëllëg seen tur dana dana dana siiw ci biir àdduna wante na ngeen woyof jàng leen ci man lii ma leen defal na ngeen koy defalante na ngeen woyofante seen biir na ngeen woyof ak nit ñi bu ñu jàngee ci injil ca xaaj ba ñu jaglee luk ca aaya ñaar fukk ak ñaar ca saar ñaar fukk ak ñeent ak saar ñaar fukk ak juróom ñaar lii lañu yàlla sunu boroom wax nee na taalibe yi dañ doon werante ngir xam ci ñoom kan moo gën a màgg yeesu ne leen buuri xeeti àddina dañu leen di dóor yatu nguur te kilifa yi dañuy sàkku ngërëm waaye yéen bu leen def noonu ki gën a màgg ci yéen na nekk ki gën a ndaw te njiit mel ne surga ay taalibeem di waxtaan seen biir naan kan moo ci gën a màgg ci ñun ci ñoom fukk ak ñaar yi kan moo ci ëpp martaba kan moo ci ëpp daraja yeesu dégg ko ne leen déedéet ki nga xam ne jàpp na ne moom moo gën a màgg ci yéen na nekk ki gën a ndaw ci seen biir maanaam ki gën a suufeel boppam te njiit mel ne surga yeesu ne leen képp koo xam ne yaa ngi xëccoo njiit na nga doon ab surga na nga doon ab surga na njiit mel ne surga woyofal yàlla sunu boroom di ñu woo ñun ay jaamam ci woyof te mës naa ko wax fii ci ab émission ne li nga xam ne moo tax saytaane yàlla sunu boroom dàq ko ci làngam mu sori ko mooy diis ba diir mbagg ki nga xam ne moo ko sàkk di aji sax ji yàlla sunu boroom ne ko déedéet jógal ci sama làng sori ma yàlla sunu boroom di ñu jàngal ci téereem bu sell bi ne naw sa bopp yëkkati sa bopp moom mooy jéego bi nga xam ne boo ko tegee rek yaa ngi nderteelu yaa ngi jëm ci daanu ndaxte seytaane nawoon na boppam yëgoon na boppam yàlla sunu boroom ne ko déedéet sori ma ndaxte fa mu mujj mooy lan mooy ne li nga xam ne yàlla rek a ko moom yàlla rek lañ ko jagleel aji sax ji rek lañ ko jagleel mu ne moom itam dana ci am yàlla ne ko déedéet yëg nga sa bopp kon sori ma yàlla wan ko boppam so mu sori ko yàlla di woy di ñu wax ci téereem bu sell bi ci injil ci bataaxal ba ñu jagleel Mark ca aaya fukk saar fanweer ak juróom ak saar fanweer ak juróom ñaar ba ci saar ñeen fukk ak juróom ku bëgg a nekk njiit na nekk seen surga ndaxte ñëwuma ngir doon ñëwuma ngir doon seen njiit wante dama ñëw ngir doon seen surga nee na ñëwuma ngir ngeen doon samay surga wante dama ñëw ngir doon seen surga ñu toll ci jamono joo xam ne li nga xam ne moom la ñépp di xëccu mooy kat man rawatina nag fii ci Sénégal man ci yax bu rëy laa bokk te loolu dañ koy gis fii sunu réew mu bokk ci jukko yi nga xam ne yàlla sunu boroom bëgg ko mooy ngay yëkkati sa bopp ngay ndamu faral yële weesu dama jël gaal jóge Casamance Ziguinchor di ñibbisi fii ma nekk ak ay tuut tànk ci yooyu ñuy wax cabine yi nga xam ne néeg yi nga xam ne juróom-ñetti nit ñoo cay nekk mu am ci benn ci tuut tànk yi daanaka juróom-ñaari at la am muy waxtaan ak man ba ma laaj ko nu mu tudd mu ne ma mankat daanaka juróom-ñaari at yaakaar naa ne sax juróom-benn at mu ne ma mankat diw sàngam laa tudd ba pare teg ci ne man maa ngi bokk ci askanu buur ñun ñooy ñële ñële ñële ñun ñooy diw sàngam diw sàngam diw sàngam askanu sàngam te xale bi bu at yi baree ba bari juróom-ñaari at la mu naan ma maa ngi tudd diw sàngam te ñun kat ci askanu buur lañu bokk yàlla sunu boroom ne ki bëgg doon njiit na doon surga Yeesu Kirist ne roy leen ci man man mi nga xam ne nekk naa seen surga nekk sunu surga moo tax mu wàcc fii ci biir àdduna bàyyi lépp la mu yore woon ndam léeg lépp ci kaw ñëw yàlla sunu boroom jëmmal ko mu ñëw dabu sunuy soxla mooy lan génnee ñu ci lëndëm dugal ñu ci leer liggéeyal ñu liggéeyal ñu moom Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist woyof nag ci sunu biir dabu sunu soxla kon nee na lii nga xam ne wan naa leen ko yéen samay taalibe dama bëgg mu doon royukaay yàlla sunu borom ne bu ñu xoolee ci koleeri gu njëkk ga nee na Musaa nekkoon na nit ku woyof nit ku mënoon a muñ yàlla sunu borom moo ñu ko wax ci téereem bu sell bi nee na yonentam boobu doon Musaa nga xam ne kéemaan bu nekk def na ko jaare ko ci moom Musaa yàlla nee na Musaa nekkoon na nit ku woyof te nit ku mën a muñ Musaa dem na ba ne yàlla sunu boroom wan ma sa bopp ma gis la yàlla def ci moom leer goo xam ne dem na ba waa bani Israël mënatuñu jàkkaarloo ak moom di ko xool mu mujj jël ab kaala def ko ci kanamam ngir nit ñi mën a wax ak moom mën a jàkkaarloog moom ndax leer gi daan génn ci moom leer gi dafa amoon doole ba nit ñi mënuñu ko xool nit kooku la yàlla seedeel ne kat nit ku woyofoon la boo xoolee tey jii ñun sunu jàngu yi ci njabootu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ci sunu jàngu yi dafa am li ñaan pasteur comme man mi ab pasteur la dafa am ñu naan révérend ci nasaraan dafa am ñun ñaan bishop wante toll nañu foo xam ne boo xoolee sunu jàng yi tey jii boo nee nit pasteur sax mu mer ndaxte pasteur dafa tuuti pasteur ku ku tuuti la da nga naan révérend wala nga ne bishop yu mel noonu ngay wax am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi ci jàngu bi fii ci Sénégal boo nuyonteeg ñoom ne leen pasteur ñu mer ndaxte déedéet ñoom seen martaba weesu na seen daraja weesu na pasteur da nga leen di woowee révérend wala ngeen woowee leen bishop loolu am na sunu jàngu yi dix monte de sunu royukaay Yesu Christ nee nañu dama leen jox royukaay woyof leen nee na ki bëgg a doon njiit na doon surga nee na ki nga xam ne dafa bëgg a doon njiit na doon surga ki nga xam ne dafa bëgg nekk ki gën a mag na doon ab surga moo waral yàlla sunu borom di ñu wax ci téereem bu sell bi ne dee leen roy ci Yesu Christ mu wax ñu ko ci bataaxal ba ñu jagleel philippien ya ca aaya ñaar ca saar ñett ba saar fukk nee na bu leen def dara ci kaw wut aw tur wala wanewu woyof leen ba jiital ñeneen ñi soloo leen jukko yi nekkoon ci Yeesu dafa wàccee boppam ba tolloog nit ñi def boppam surga dafa suufeel boppam di dégg ndigal ba joxe boppam moo tax yàlla yëkkati ko kaweel ko jox ko tur bu kenn amul mu ne soloo leen jukko yooyu Yeesu Kirist royukaay la nee na yàlla nee na dafa suufeel boppam ba mel ne nit ñi wàccee boppam def boppam ab surga di dégg ndigal ba joxe boppam moo tax yàlla ne danaa ko yëkkati ndaxte kii fa mu nekkoon la mu nekkoon la mu amoon mu bàyyi loolu lépp ñëw wàccee boppam ba doon surga kon kii danaa yëkkati turam danaa kaweel turam ki nga xam ne bëgg nga yàlla kaweel sa tur yëkkati sa tur defal sa bopp ab surga na nga woyof kon Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di ñu soññ ci si woyofal sunu bopp kon yàlla na ñuy woyofal sunu bopp yàlla na ñuy woyofal sunu bopp yàlla na ñuy woyofal sunu bopp mbokki auditeurs yi man seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall maa nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi di leen fàttali rek ne boo leen bëggee téere bu sell bii di bible bi mën ngeen ma woo ci sama numéro téléphone 77 074 35 35 bu boobaa danaa leen dimbale ba ngeen jot ci ma leen di sant di leen gërëm wasalaam. mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi. te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35